toll daanaka sëñ Mouhamed Habib lim ci yokk rek mooy ñu toog tàmbalee woo nag ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi nu war a jox neexal yu rëy yi di leen ko jox ngir seen taxawaay ci alxuraanul karim sëñ Mouhamed Habib bismillah ma sha allah euh, wa nabda bil xaamis wa huwa soxna Maymuna Lo daara sayyidatuna Aïcha ummul muminin cinquième cinquième oh, septième la jëloon daaw ren cinquième la jël tkallamul arabia ya akhi hada sa yutarjim monsieur l'attaché de l'ambassade de la Palestine moom la ñuy ñaan mel na ni eh, lahda ah, alhaj jeli soxna may na ñëw état bi. cinquième bi na ñëw yéeg ñuy woo ñeneen ñi. ñooy woo cinquième na yéeg ñëw taxaw nii. na yéeg tax na soxna Maymuna ñëw. الطالبة ميمونة لو حصلت على خمس وتسعين فاصل ثلاثة وثمانين بدرجة ممتاز cinquième cinquième léegi ñu jàll ci quatrième bi arrabi wa Shuaybu Wañaan Sëriñ Shuaybu Wañaan lii nag lii nag du hasard sëñ Fallou quatrième ñi ngi quatrième édition concours national ko ak fédération quatrième prix bi ku ñu tuddee Sëriñ Shuaybu jël ko loolu du hasard sëñ Shuaybu Wañaan bismillah te Sëriñ Touba moo doon numéro 4 Serigne Chouaïbou Wañaan Serigne Chouaïb Chouaïbou Wañaan min Diourbel wa Maymuna Lo min Dakar wa Serigne loolu itam du hasard Serigne Chouaïbou Wañaan ca Buqatul Mubarak Diourbel Diourbel xasala ala sittin wa tisiin fasila xamsin bi darajati mumtaz fa imaam a ngi waaj a dem ci troisième prix bi. te moom yaakaar naa ne ex aequo la woon bi. naam yow def nga sa déclaration ba pare. <laughs> imaam def nañu sunu enquête ñu nit euh, lu ngeen wa saani mutasaawiyaan wa xasala kullu minhuma ala wa tisiin ibrahim umar saïd ba min maatam ibrahima umar saïd ba ca maatam na ñëw moom nag dafa execo ak kii nga xam ni moom la imaam di waaj a tudd wa mouhamad sek Diallo min dakar mouhamad sek Diallo bu dakar mumtaz ibrahima saïd ba na ñëw mouhamad itam na ñëw ñoom ñaar nag dégg ngeen imaam nee na danoo ex aequo ñoo tolloo ay point kon ñaari deuxième incha allah wa sayutarjimu lakum ustaz Tahir incha allah wa والذي حصل على الدرجة الأول على الدرجة الأولى هو سرين مصطفى جاه من لغة سرين مصطفى جاه باللغة على جو ما جيكتنا لخم ndax waa région de Louga la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 hada huwa Serigne Moustapha Dia min Louga mi ngi noonu Serigne Moustapha Dia Louga wa xasala wa xasala alhudu macha allah <laughs> naam wa xasala ala sab'in wa tis'in بالتمام بدرجة ممتاز إذا عندنا سيرين مصطفى جا محمد سك جالو إبراهيم عمر سعيد باز شعيب ونيان ميمون لو هؤلاء هم الخمسة الأول ونترك للشيخ طاهر jërëjëf sëñ Mouhamadou Habib mi ngi jox sëñ Tayi Fall moom it mu leeral noonu nga xam ni noonu la jury bi joxe résultat yi waaye maa ngi fàttali itam euh, son excellence Serigne Mbaye Thiam day daal di ñëw mooy joxe le premier prix excellence kon euh, ni sëñ Fallou moom Cheikh Souaïbou moom it day ñëw mel na ni jox na ko Serigne sëñ Khalil. sëñ Khalil la sëñ Fallou jox ndigal. mu ñëw joxe ko. sëñ Abo it kazalika naka noonu moom soxna may mu natu. moom it day joxe ñaari deuxième am. kon sëñ Khalil ak sëñ Abo ñoo joxe deuxième yi. léegi euh, dañuy wax rek de maanaam euh, six sixième ba dixième ñëpp ñooy am prix. ñoom ñëpp la grand prix Sénico di teral. maanaam un ba dixième ba dixième. waaw léegi kon Cheikh Tahir man nga liir. Eh, léegi dañu bëggoon sëñ Tahir. dañu bëggoon jukki premier cinq cinq premier prix yi. bu ko defee waa léegi yow mën nga lim mën nga leen lim léegi waaye ñu may. waaw joxe yi ba noppi. bi jiitu Serigne Moustapha Diala. Serigne Moustapha Dia. mooy première bi. fan la fan la jógee. Louga la bàyyi ko. lu waaw Louga mooy sëñ Moustapha Dia Louga bi ngi nii taxaw waaw. bu ñaareel bi Serigne du sekk jàllo moom dakaar moom dakaar la bàyyikoo moom dafa execo. moom dafa execo ak ak Ibrahima Omar Saïd Ba. ca maatam ca maatam moom Matam la jógee deuxième bi ñaari région ak dakaar ñaar ñi leen représenté dañoo execo. waaw ki dakaar Dakar Mamadou Seck Diallo la tudd. Mhm. ki représenté Matam Ibrahima Omar Saïd Ba la tudd. ñeent léegi ñu jëm ci quatrième prix bi ñooy ñaareel bi. waaw léegi ñu jëm ci quatrième bi. di Serigne Chouaïbou wañaan waaw. Eh, yi dafa mel ne yéen a ngi dem te liggéey bi jeexagul Cheikh Mouhamadou Hadi Touré incha allahu moom mooy tëj cérémonie bi ak njàngum Alquran te xam ngeen ne xayrul umuri xawaatimuha ñi ngi ñaan na ñëpp ànd ak dal déglu ko mu tëj cérémonie bi ñu ñaan. fekki waat ko ak déwén ak jàmm. quatrième bi Jurbel la jóge mi ngi tudd bu Weñaan moom Jurbel euh, la jóge mooy quatrième bi. cinquième bi mi ngi bàyyi ko Dakar mi ngi tudd may Maymuna Lo mooy cinquième bi. sixième bi Maam Jaara Jóob la tudd mi ngi bàyyi ko région Kaolack. sixième bi dafa ex aequo bàyyil ma àggale li may wax sixième bi dafa ex aequo maam Jaara Diop ak Mohamed Dia. ñoom ñaar ñooñu ñëpp sixième lañu. ak Mohamed Dia maam Jaara Diop mi ngi mi ngi bàyyi ko Kaolack. Mohamed Dia mi ngi bàyyi ko Saint-Louis. maam Jaara Diop mu ngi bàyyi ko Kaolack ca daayira maam Soxna Jaara ga ca Porokhane. ñoom ñaar ñëpp sixième lañu dañoo ex aequo ñoom ñaar la. Ibrahima Bokar Kamara. Ibrahima Bokar Kamara. moom Saint-Louis la bàyyi moom itam. moom jóge Ndar. moom huitième la. mooy huitième. waaw moom ak Mor Dia. ak Mor Dia. Mor mi ngi bàyyi ko Diourbel. bi bàyyi ko Diourbel ñoom. Ibrahima Bokar Kamara ak Mor Dia ñaar ñii. dañoo execo dañoo execo huitième. Mhm. Ibrahima Bokar Kamara Saint-Louis la jógee. la jógee. Mor Dia Diourbel. Mhm. góor a gay say baar góor a say baar moom mi ngi bàyyi ko Dakar moom dixième la moom ak Ngañ Diop ñoom ñaar ñëpp dixième lañu dañoo exéco Ngañ Diop waaw dañoo exéco Ngañ Diop mi ngi bàyyi ko Louga jërëjëf Ibrahima Ndiaye hmm? defe naa foofu la yem waaw jeex na léegi foofu la résultat yi yem ñuy ñaan nag ñi nga xam ne ñooy jox xale yi seen teraanga nanu agsi waaye Cheikh Makhtar Silla bi demoon Malaisie aussi jël quatrième Grand Prix Sénico mi ngi koy ndokkeel fédération bi ñi ngi koy ndokkeel sëñ Makhtar Silla ñi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla teraangaam yàlla sax sëñ Omar mi ngi jóge ci daara Daaru Salaam Serigne Cheikh Hadi sëñ Omar sëñ Matar gi nii na ñëw taxaw noonu sa wet. Serigne Cheikh Matar ñëpp ñaanal ko. na ñëw taxaw fii ci pegg xale yi. ñaanal ko moom moo demoon Malaisie moom soxna may mu ne mii jël fa quatrième. waaw kon nag ñu waajal sëtu Aïda Ndiaye Badara Lo joxe na cinquante mille. léegi ñi joxe prix yi nañu ñëw waaye yaakaar naa aussi Cheikh Mouhamadul Hadi mën naa jege pour jéem a tëj cérémonie bi loolu lañ ko bëggee woon bokk yi nag. ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf sëñ mag a ah, waa Louga de dégg naa leen ñaari yoon ñu tim lim leen ku baax jóge na Louga. excellence kon euh, ni sëñ Fallou moom Cheikh Souaïbou moom it day ñëw mel na ni jox na ko sëñ sëñ xalil sëñ Khalil la sëñ jox ndigal. mu ñëw joxe ko. sëriñ Abo it kazalika naka noonu moom soxna Maymunatu. moom it day joxe ñaari deuxième am. kon sëñ Khalil ak sëñ Abo ñoo joxe deuxième yi. léegi dañuy wax rek de maanaam euh, six sixième ba dixième ñëpp ñooy am prix. ñoom ñëpp la grand prix Sénico di teral. maanaam un premier ba dixième ba dixième. waaw léegi kon Cheikh Tahir mën nga liir. Eh, léegi dañu bëggoon eh, sëñ Tahir. Ah. dañu bëggoon jukki premier ah. cinq cinq premier prix yi. bu ko defee waa léegi yow mën nga lim mën nga leen lim léegi waaye ñu may. waaw joxe yi ba noppi. bi jiitu Serigne Moustapha Diala. Serigne Moustapha Dia. mooy première bi. fan la fan la jógee. Louga la bàyyi ko. lu waaw Louga mooy Serigne Moustapha Dia Louga bi ngi taxaw waaw. bu ñaareel bi Serigne Mamadou sekk Diallo. moom dakaar moom Dakar la bàyyikoo moom dafa execo. moom dafa execo ak ak Ibrahima Omar Saïd Ba. ca Matam. ca Matam moom Matam la jógee deuxième bi ñaari région ak Dakar ñaar ñi leen représenté dañoo execo. waaw ki dakaar Dakar Mamadou Seck Diallo la tudd. Mhm. ki représenté Matam Ibrahima Omar Saïd Ba la tudd. ñeent léegi ñu jëm ci quatrième prix bi ñooy ñaareel bi. waaw léegi ñu jëm ci quatrième bi di Serigne Chouaïbou wañaan waaw eh, mbokk yi dafa mel na yéen a ngi dem te liggéey bi jeexagul Cheikh Mouhamadou Hadi Touré incha allahu moom mooy tëj cérémonie bi ak njàngum alquran te xam ngeen ne xayrul umuri xawaatimuha ñi ngi ñaan na ñëpp ànd ak dal déglu ko mu tëj cérémonie bi ñu ñaan fekki waat ko ak déwén ak jàmm. quatrième bi Jurbel la jóge mu ngi tudd bu Weñaan moom Jurbel euh, la jóge mooy quatrième bi. cinquième bi mi ngi bàyyi ko Dakar mi ngi tudd may Maymuna Lo mooy cinquième bi. sixième bi maam Jaara Jóob la tudd mi ngi bàyyi ko région Kaolack. sixième bi dafa ex aequo bàyyil ma àggale la may wax sixième bi dafa ex maam Jaara Diop ak Mohamed Dia. ñoom ñaar ñooñu ñëpp sixième lañu. ak Mohamed Dia maam Jaara Diop mi ngi mi ngi bàyyi koo Kaolack. Mohamed Dia mi ngi bàyyi koo Saint-Louis. maam Jaara Diop mi ngi bàyyi koo Kaolack ca daayira maam Soxna Jaara ga ca Porokhane. ñoom ñaar ñëpp sixième lañu dañoo ex aequo ñoom ñaar la. Ibrahima Bokar Kamara. Ibrahima Bokar Kamara. moom Saint-Louis la bàyyi moom itam. moom jóge Ndar. moom huitième la. mooy huitième. waaw moom ak Mor Dia. ak Mor Dia. Mor Dia mi ngi bàyyi ko Diourbel. bi bàyyi ko ñoom. Ibrahima Bokar Kamara ak Mor Dia ñaar dañoo ex dañoo ex aequo mhm. Ibrahima Bokar Kamara saint la jógee. Ibrahima Bokar Kamara Saint-Louis Mor Dia Diourbel la jógee. Mor Mhm. baar Njoore Sey Baar moom mi ngi bàyyi ko Dakar moom dixième la mhm. moom ak euh, Ngañ Diop ñoom ñaar ñëpp dixième lañu dañoo ex aequo Ngañ Diop waaw dañoo ex aequo Ngañ Diop mi ngi bàyyi ko Louga jërëjëf Ibrahima Ndiaye hmm? ah, defe naa foofu la yem waaw jeex na léegi foofu la résultat yi yem ñu ñaan nag ñi nga xam ne ñooy jox xale yi seen teraanga nanu agsi waaye Cheikh Makhtar Silla bi demoon Malaisie aussi jël quatrième grand prix Sénico mi ngi koy ndokkeel fédération bi ñi ngi koy ndokkeel. sëñ Makhtar Silla na koy ñaanal di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla teraangaam yàlla sax. sëñ Omar mi ngi jóge ci daara Daaru Salaam Serigne Cheikh Hadi Touré. sëñ Omar sëñ Matar gi nii na ñëw taxaw noonu sa wet. Serigne Cheikh Matar ñaanal ko. na ñëw taxaw fii ci pegg xale yi. ñaanal ko moom moo demoon Malaisie moom soxna may mu ne mii jël fa quatrième. waaw kon nag ñu waajal sëtu Aïda Ndiaye Badara loo joxe na cinquante mille. léegi ñi joxe prix yi nañu ñëw waaye yaakaar naa aussi Cheikh Mouhamadul Hadi mën naa jege pour jéem a tëj cérémonie bi noonu lañ ko bëggee woon mbokk yi nag.